waaw sëriñ bi alxuraan moom buñ ci nekke daanaka danu ci war a nekkit te danu ko warit doon ndax ku xam paal dégg alaji rawaan baa nga xam alaji rawaan te muy suma maam ndax alaji maali ngom doomu baay alaji rawaan moo jur sama waajur wu jigéen ñun alxuraan rek la nu xam ba too toog jour bu nekk quatre heures du matin la ñuy jëkk jàng kaamil ca rek la xam xam alxuraan nu koy topp ba xam lu bari ci secret alxuraan ndax du nu ne xam nañu secret alxuraan waaye nu xam lu bari ci secret alxuraan sëriñ bi yàlla wax ci alxuraan ni sifaun wa rahmatun wax ci lu doy waar alxuraan doy lool. lii moo waral sëriñ Moustapha di daw ci alxuraan di jéem a roy ci alxuraan di bëgg alxuraan ngirit alxuraan bëggnu ndax moom rekk kay faj sunu yaaju sëriñ man di lu gis mu ne ci man ci xéewal ci barke alxuraan laa ko jële kon yaa ko jàngee paal foo nga jàng laa jàngee alxuraan sama waajur sonn ci lool ma ci lool ci lu ma ci doon daj jaar naa ci daara sëriñ Alioune Dieye gu fii ci Thiès tafsir Abdourahman Gaye moomu fa la jóge tubarkàlla <laughs> waaye sama bàyyi ma jàng lu ëpp ci alxuraan sëriñ bi ba pare nag nu jàng ci yeneen fànni téere yi waaw waaye xam-xam bii waxe jaam yi di ko kiwe fa jóge moom sore na lool waaye mënuñu ci utiliser lenn te sëriñ bi jàlluñu ci alxuraan te luñ la ci wax téere la. est que jaadu na aussi sëñ Moustapha alxuraan ñu koy utiliser pour ay pour waa xam nga alxuraan bu yàlla ne sifaun wa rahmatun yërmande la wax saafara su ànd ak yërmande mm-hmm. su alxuraan mënoon benn sens bi rek. te du def beneen sens bi dañ naan alxuraan dafa tële waaye taxul li nga xam nga def ko ci yàlla waxul loolu alxuraan boo ko xoolee yërmande rek la ci yàlla dëxëñ. waaw gis nañ ñu utiliser si si ay gis nañ ko ñoo dañ naan si alxuraan mm-hmm. xoolee dañuy jël alxuraan bi si xam pour faagaagal doomu aadama wala di ko def ay nattu yoo xam ko ko. waaw sëñ bi dëgg la waa xam nga juif bi ci Amérique sax mi ngi jëfandikoo alxuraan. ay mbiram mënul doxta laalul alxuraan lu garaaw laa lay wax nag juif bi toog. Mm-hmm. am na loo xam ni mënu ko doxal te laalul alquran taxul nag lamuy def mu jaadu <laughs> li tax nag fànnin boobu ma jox la ko dafa am sikri yu doy waar yu ne ci alquran te léeg gaañu yóbbu ko ci diggante jees ak étoile yi niy def ci xaatim yi sëñ bi ko est-ce que explication bi du ko falaa jëm si. jëm si. lu tax. loolu benn. ki jëfandikoo alxuraan te tegu ko ci yoon di ci faagaagal nit. déedéet alxuraan loolu taxu ko jóg. waaye nag secret jaa kooku yàlla la am ak affaire waaye du alquran la am ak affaire waaye li li nit ki mën a dégg mooy alquran loolu taxu ko jóg xam nga lu ko tax a jóg shifaun wa rahmatun jooju saafara su ànd ak yërmande kon kay soxor amu ci ray nit amu ci puusal ma toog amu ci tënk nit ba muy faju ordonnance yu dul jeex amu ci dëgëre alxuraan nag man na ko waaye taxul yàlla ni ñu jëfe ko. dégg yow. Mhm. est-ce que la sama wujju daf ma tooñ. Mhm. sama doom dañ koo def nangam. waaw yow boobu waaw ay fee yu néfaste xam waaw xam nga nit ñi la dama feebar rek warul tax nga ñëw bindal ko ordonnance. am na am na pharmacie yooyu dem feebar xam nga danga ko expliquer waa xam nga bu doon pharmacie rek dafay dafay kon hôpital c'est pharmacie bi yaakaaram lu mu tartar ci hôpital bi la gën a jàpp ni li muy am sax fa lay jóge <laughs> kon dafa am loo xam ni yóbbaale ma la am loo xam ni nag du yóbbaale ma la dafa am foo koy teg mais mën nañ d'accord si si am na ñu koy waaw ñu koy utiliser. waaw pour faagaagal loolu mën ay fay yoo xam xam nga bu ma nee amu ci day mel ni Alxuraan loolu amu ci te mi ngi ciy am xam nga lu ma war a wax ah loolu du yoon waaye nag bu nit ñëwee wax la waroo gàntu waxam ndax li muy wax bu doonee dëgg te wu ci engagement rek. lor nga ko. déedéet bu doon lool sëriñ bi lekk naa ci ay milliards ndax dégg naa ci nag lone xam nga lu may utiliser ci alxuraan mm-hmm. aajoy jaam bi faju ci li sunu borom nangu ak ci lu baax ak ci lu jaar yoon leneen lu ci ñaaw man Moustapha teggi naa yoon woowu. léegi si Moustapha est-ce que alxuraan aussi. mun nañ xool. gis si lu war ñëw suba wala lu est-ce des na si seet. yaasin wal qur'aanil hakim da koy def. maanaam seet gi da koy def. mubin ji ngay dégg juróom yi day seet seet gu wér moom alxuraan te looloo ci gën a néew sëriñ bi. léegi si Moustapha est wala am na yeneen leneen lu muy seetee. sanastadrijuhum min haysu day def lu day waar pourtant ci loolu. <laughs> man suma seet sëriñ bi bu dee dëgg laa lay wax lu ne man la bindunu ko ci këyit te lu ma la wax ci nit du dañ damay seet ci ndox damay seet ci sir tisi damay seet ci suuf bunte yi damay seet ci seetu sëriñ bi damay seet ci loxo waye giñ naa ci rasulillahi sama original seet dëgg billahi newul ci téere te ku weddi loolu yit na ni ma sëriñ bi sama bopp laa bëgg a xam <laughs> ah, lu garaaw laa lay wax. ñu bëri dañ laa màngal dañ laa màndagale woon alxuraan ni si euh, waa alxuraan day seet xam nga ba léegi ba léegi ni dama génn alxuraan waaye dama ni la man seet gi ma yor mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. man nit ñëw na di ko jënd ci man pour pour lancer ci loolu. pour muy leer sax ma wax la ni doguma ci wax ji nga baal ma ni koo xam ni man ak moom ñoo bokk wenn waajur wu nu jur te sëriñ kaamil la mi may dégg ñoo bokk wenn waajur wu jur te xam-xam rek la. waaw li si euh, moment bi ngay expliqué naan ma seetaan naa ko. waaw waaw expliqué yi ñu si. waaw. Euh, mënut a weesu ñeent ak ki loolu bu nu seet de. loolu loolu mbir la loolu sëriñ bi. Hmm. yooyu information la yuy jàll. <laughs> mais xam nga ba ko waxee ñu bëri weddoo dañ ko man mi seetaan. ca Angleterre sax da ko weddi. waaye daf ma woowaat jéggalu ni ma sëriñ bi <laughs> waaw d'accord naa ni war nga mën a weddi ndax nit lu mu xamul am na droit weddi ko c'est normal lu ma nangu la. mais xam-xam boobu xam si doon wax si affaire waaw te yow bi si dalee wax daanaka début parrainage bi loolu muy doog a mm-hmm. yëngu ak mm-hmm. euh, candidature yu bari mm-hmm. yow da nga am xarit bi ministre de l' intérieur wala da nga da ngay coalition lay wax yenn secret wala yow ba nga koy prédire mën nañu xam si lan nga ko alxuraan di jaaroon wala si giñ naa ci salaatul faatihi soo ma bëggoon wax fi ni àttee loolu xaw ma ko. mais gént la wala xam xam la bu ma yàlla dénk soo gisee sax. may wax ba ci yàgg sama image di changé wu dama xam bu baax li may wax sëriñ bi xam-xam la ci man te wér na ma te du c'est la première fois sëriñ bi dama daan tëdd ci lal muy kiij kiij ji di yëngatu ba sama waajur lay woo wu jigéen di ma garde ba bët set dal na ma man mii <laughs> su dee dëgg laa lay wax suma xam-xam xam naa ni am na ko waaye fi mu jóge mun ma laajoon Seydina Cheikh Ahmed Tidiane Chérif fay suma sëriñ loolu wér na ma man moo tax lu ne ci suufu doomu aadama diggu tànkam ba ci diggu boppam yàlla dimbali na ma xam naa ko du ma ne nag nit ki day wax ni ak nangam ki koy weddi na ñëw tiima ma rek ni ma sëriñ bi sama bopp laa bëgg xam ma def ma wax ko loo xam ni waxu ko ay waajuram waxu ko mbokkam waxu ko ku mu mën a àndal ma wax ko ko. waaw ñun am nañ si benn témoignage. jërëjëf sëriñ bi ñu sëñ Moustapha na ma faj na sama si mhm. téléphone. waaw ndeysaan <laughs> xam nga man sëñ bi waaw léegi dafa am connexion wala euh, léegi. am naa ko am naa ko bu baax ba dama koy sax joxe waaw bu baax sax. waaw léegi loolu xam nga loolu Sénégal la xewee. France ak fudul foofu waaye France laa lay jox. fekk naa ku tëdd ay at ci këram. génnut xool buy tàng. guddi gi ma yàlla dimbalee. dafa bind ci fooyi. woo njabootam. ni leen téye ngeen ma ba tàyyi damay bëgg dee ndax bëggatuma dara suma àdduna ndax naqari xool sëriñ bi dénkaani ay dénkaaneem ba pare njabootam di ko jooyoo mu ni zéro heure bu jotee day dem yoonam image bu mu gis doomam di ko seetaan mu dégg suma kàddu déglu ko ba pare bënn bëtam jooy wàcce li mu bëggoon def composé sama numéro woo ma may wax moom ay waxtu ay waxtu ñaari fani yàlla ñemewuma wax ak sax keneen te duma wax ak moom ndaw soosu jóge ba France ñëw seet ma di lekk di naan di dem ci marché bi waa këram di bég doomam bàyyi woon doctorat docteur gi mu nekk woon ngir surveiller yaayam te ku ku xamul loolu yow mi feebar ak foo mën ne jëlal sa telephone nga wooma bu biir bi di jam fi mu toll billahi fa ngay toog ngay too am jam xam nga nit leewu nan ko indi ko fii mu jóge ba Thiès nu mm-hmm. jox ko rendez-vous mm-hmm. mu takku lool dañu ko leewu yaram wi lépp doon bàyyi mooy da doon der bi moo doon dañ mm-hmm. fekk liggéey la sëriñ bi rendez-vous juróom fan lañ ko joxoon ñaari fan lañu ko ñaanal yàlla moo saafaraw xam-xam am na bu nu dëggalee te teg ko ci digganteeg sunu borom rek te yàlla tax te mi ngi ci alxuraan pourtant fu nit mën a ne ci àdduna nani ma sëriñ bi lii moo ma dal waaw léegi sëñ bi ko xamante ni par exemple dafa jàpp ni dañ koo dañ koo liggéey. waaw dañ koo liggéey. ba nga xamante ni waa soit ñi liggéey yu bëri yu def dañ daanaka day daal si côté si côté si côté. gën a garaaw. ay magie noire. dëgg la la ñuy utiliser. waaw est-ce que yow magie noire. xam-xam ak gën pour dindi. waaw ay sacrifice waaw am na foo am na foo xam ni sëriñ bi bu fa nit tolloo mm-hmm. liggéey bi day dafa am foo xam ni booy dox aajowul gilet am foo xam ni booy dox danga nga war di sol gilet <laughs> de xam fu miin yi dafa am foo xam ni waa xam nga tey dafa am foo xam ni man su may jëli dara nii yi may laaj nag lu am solo la dafa am loo xam ne suma koy jëli nii jarul may jàdd gauche jàdd droite mën naa jubali rek jëli ko am loo xam ni alxuraan ji sell na sello goo xam ni dama koy teg nii liggéey bi am nii la ko waral nu xooli ko ba pare xam ni ban taxawaay la ci alxuraan war a taxaw te duñu tooñ alxuraan ndax léeg nit di ñaan ci alxuraan ba tooñ alxuraan am na sëriñ bi nit warul di sangoo saafara di summeeku ba set baaxut benn ngi noonu a ah, jeex na mi ngi noonu benn ngi noonu <laughs> waa sëriñ bi sangoo saafara kayit gi ñu ngi ci bind laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah na nga xool sa diggu tànk di ko ci seen say awra tim ko ah, moo tax ñu ngi sangu bay bëgg a dara mënul sotti maanaam boo sangu saafara war sol lu gàtt loo ñaan alxuraan daf loo koy may secret la nag ci ñaan ñu ko xam bariwut benn ngi noonu tooñu alxuraan bi <laughs> ñaareel bi ci tegu mooy alxuraan dafa am yu bari yu ci xew mm-hmm. te nit ñi xamuñu am na ñuy jël alxuraan di ko jox jigéen te jamono ji mi reegal jigéen ji expliqué wuñu ko mu dem di ko sangu amut loolu lu mu doon. waaw yaa ma laajee foofu moo tax ma dugg foofu waaw sa laaj boobu mooy boroom xam-xam xaw ma bokk ci te boroom xam-xam day am xam-xam bu saay-saay am xam-xam bu yiw bu yiw bi mu koy jëflanteeg ak ñu yiw ñi bu saay-saay bi mu koy jëflanteeg saay-saay bi am na boroom xam-xam boo xam ni boroom xam-xam rek lay bañ gis. ci àdduna am na boroom xam-xam boo xam ni boo leen tooñee ñoom nu la xaar nga leen ni jéggalu dañ lay bëgg yàq waaw ki dem ba yaakaar sëriñ Mustapha mu ñëw ci sëriñ Mustapha Serigne Mustapha war ko teggi li mu ne bu ne ko aw ma lii may wut gàllankoor day daal am xam-xam loolu amu ci dangay dem wuti lépp weccit booy wut dangay wut bii wut bu sew mën ci soxla pour nga mën ko joxe ci nu la nag laa wax moo tax dañuy jëfandikoo yooyu sëriñ bi bu nee duñ ko jëfandikoo rek waxuñu dëgg waaye sunu base alquran la par exemple euh, tey mhm. jii am na ñoo xamante ni ñu bëri. dañuy mhm. di bëree. Mhm. da leen wax ay sacrifice yoo xamante ni. daanaka rey nit lañ deful. waaw wala sax dañ des koy dégg. waaw waaw. léegi est-ce que ut ndam. jar na ngay sacrifice boobu noonu est-ce que amul leen lu leneen lu gën gaaw. loo xamante ni mun nga am ndam te amee ko nu sell. waaw soo xa ngay ngay ngay ngay sacrifice wu lenn wala dagg sa baaraam. rey sa jabar mm-hmm. amul leneen lu a yomb loo xam xam nga loolu loolu ci alal ji nga wax boo ci booleelu woon daggu baaraam sax mm-hmm. duma duma duma duma duma ci dugg mais am am na na ci borom alal yi ak ñi wut ndam waa sëriñ bi nit soo xamee li ko yàlla defal mm-hmm. xam wursug wi ko sunu borom defal bun ko bu doon rang fu mu war a dara su xamee li ko yàlla defal sax du joggi tànku jaamur du yàkkamti bay joggi tànku jaamur bay def leneen ci waxin nag ci ki déggoo wolof mooy nit loo bëgg am man nga ko am te doo def lu ñaaw billahi wallahi am na ci alquran nit mën na am ndam te du def lu ñaaw pourtant de <laughs> nit mën na aaru te du def lu ñaaw waaqiha day maye ndam yaasin day maye ndam aaru man nga ko def ci baraatun min allahi ji ne ci alquran te amul bismillahi rahmaani yeneen yu dul yooyu. est que ñoom jàpp loolu dafa gën a gaaw wala yow jàppoo ni loolu bi ku naan alquran efficaceul moo efficaceul. <laughs> alquran rek efficace man fooy bu weex tàll sëriñ bi boo ma ko joxee léegi nii. mani la joggi ci boo ci joggee toog pourtant te li ma ciy jàng alquran la fooy laa la wax di binduma sax damay tëfli rek ci fooy bi teg ko nii ni la joggil sëriñ bi alquran la pourtant de li ma ciy wax alquran la alquran mën na la may alal ci nu sell billahi alquran mën na la may oto ci nu sell alquran mën na la may soxna su baax rabbana atina dalay lay may soxna su baax soxna si nga bëgg mu ndanga koy am kon lu tax nit ñi di bëgg di jëf-jëf yu ñaaw yi Sëriñ Tuubaa dégg nañu ko fu ne ci àdduna mm-hmm. te ndam li mu doon wut moo gën ndam yéeni wut léegi mm-hmm. ndamal lan la doon wut islaam da mas dégg ni nu Sëriñ Tuubaa laal na xaj baa laal na nangam sàngam masul am waaw sëriñ bi ndamal lislaam lan ndam moo ko gën a rëy ci àdduna ba nit mu jaral kon loolu muy doxale neneen nu bokkul ak noonu <laughs> est-ce que dégg nga wax ji jërëjëf kon nag bu yaak bu nit ki yaakaar ne bu amee ndam rek jeex na xam nga ndam li dàq ci àdduna ndamal àdduna ak ndamal alaxira am ndam ba pare xalaat la nga def sëriñ bi loolu dara àdduna jaru man nag bu dee lu ñaaw rek ak ku ma mën di dégg ak ma seetaan doxuma ci waxuma ci ñaanaluma ci nit te bu ma dee may milliard duma ko am gëw ma ko sax nag. sànq da nga wax waxi waaw bi Sénégal mi ngi si difficulté mhm. mhm. borom kër ko am xam nga lu koy waral yu bëri nag bëgg ko. xam nga lu koy waral. dafa ma yóbbante nag ci loolu. waaw ndeysaan su fekkee si Moustapha na saafara. Mhm. bu baax. alhamdulillahi fatiri samawati wal ardi maa yaftani laaw jafa nekk day maye jëkkër <laughs> rabbana atina day maye soxna di maye it jëkkër. mais sëñ ñoo xamante ni dañuy dem ba du bëgg am jëkkër. waaw dem ba nga xam ne ku day yónnee. Ah. yaakaar nga nag la ñu war a laaj lu ko waral. waaw loolu ma laaj sax. ak ban saafara la am na nag. ki mel ni nga war a mel te taxul nga am li nga war a am am na lu xew benn ñaareel bi ci tegu mooy sëriñ bi bu la rab jàppee te contrôlé woo ba jëflante woog moom doo mas a gaaw a am jëkkër yow mi jigéen bu la rab jàppee yow mi góor foo tollu di gént pour di sey doo gaaw a am jabar yow mi eh, góor bu dee jigéen la doo gaaw a am jëkkër waaw dafa am mm-hmm. bu wér la sax nag mm-hmm. ñaareel bi ci tegu mooy mm-hmm. ñenn ñi seen ñàkk bañ a am jëkkërit am na ñoo xam ni ay war la <laughs> yii nag bo amee sëriñ bi ku ci nekk am na fooy jaar ak moom ba li bëgg nga am ko ndax nit waroo ko ñaanal ta xamoo ki ngay ñaanal kan la alxuraan am na ci pourtant ay bunt yu garaaw sax sëñ bi dañu bëgg ni si Moussa bu ñu day bu dee danoo am liggéey ndax léeg nit jël sa sekkit yóbbu ko ci sëriñ doo mës sa dégg sëy léeg nga doon nekk kit góor ngeen tàqalikoo neexu ko mu dëj la te kaa bii ngay wax ni ci jigéen ñi demoon sëy ba ñëw sax la gën a garaaweeti nag. dina duma ko def. pourtant sëñ bi gis nañ. gis nañu yaa ngi fayantoo <laughs> wax ma fan laa fayantoo ah, ma indil la ci lu leer ndeysaan ay <laughs> ah, waaw gis am nañu boo xam ne ni waaw da nga fan laa nga wax ma ko ah, si sa ancien patron sëriñ bi jërëjëf pourtant yàggul dara dama ci bëgg def émission ma leeral lan la foofu noonu sëriñ bi ba nga xam ni ñëw si fayantoo kër Ndella Madior ñu gis nañ ko. ah kon xam na nu dan ma tooñ ba may fayantoo wala. non non du ma sama question. damaa laaj ba fayantoo ko <laughs> waaw li ma ko lebal la ma fayut. ba tax ñu sa xam-xam. kaay ma wax la sax balaa may xuus ci loolu. sëriñ bi dama mujjal Ndella lu ke kenn muñalut. parce d'accord naa ci lool loolu la sunu boroom dogal sëriñ bi bin may tàgge sama waajur maa ngi ci service su Ndella Madior Diouf ca Mbuur ca sali ci kaw lal laa wàcce Ndella moo tere ba fekkewu ma ba ni suul sama yaay barke salaatul faati Saly la ma fekk bu dul dëgg yàlla bu ma fi cinq heures fekk déglul wax ji de benn ngi liggéey naa moom ay at masuma taxaw laaj ko suma saleer te lim ma yoreel bu ma ko fayoon ma tabax étage waxuma ko pourtant de man néwoon naa ci moom jóge naa fa mi may seen ci internet bi la ko naqadi mooy xëy na bi ma newee ci moom suma numéro ku ko bëgg doo ko am <laughs> amoon benn service clientèle boo xam ne moo doon recevoir. xam nga sëriñ bi man bëgguma di wax ci moom sax ndax xam nga lu tax non xam nga lu tax mooy li ma wax rek dafa doy ki nga nekkal ba sa waajur génn àdduna te jëlul cinq mille francs jox la mhm. cinq mille laa la wax joxuma ko mhm. moo kon ca Canada te yëg na ko ndax def na ci émission junni joxuma ko ci mhm. ba ma ciy jox téeméer maay dang-dangi di dugg di génn ba dem fekki nu suuli sama waajur vingt deux heures laa dugg ci armeel di ziyaare ji sama yaay sëriñ bi lii bu dawul yaram ndeela waroon na xalaat lool dama toog fii sama kër mu ne xas dinu tuumaal te billahi wallahi wa tallahi la muy wax amut mu metti ma lool déranger ma lool sax may gor ma lebal ko leneen lu bokkul lool mu toog di wax ci ñun lu rafetut manuma ko muñ dama doon dem ci biir këram laa jëmoon samay soppi di ma woo bay jooy sama ngor mayatuma déedéet taxaw naa ci buntu këram une heure de temps baa mu raw ko man nëbbatuwuma gardien yaa ngi toog nëbbatuwuma déedéet déggoo ma xam naa ni am na caméra foo liggéey sept ans xamoo ba xam am na koom déet man déggoo ma to xanaa doomi aadama moo raw loolu doomi aadama moo raw caméra maa taxaw fi ma taxaw di wax li ma wax daf ma tooñ fa yontoo ba de daf ma tooñ man lenn laa soxla woon ci moom gis ko wax ko dëgg wàññeeku nit ma bul dugg ci këram ma wàññeeku def li nga xam ni man li ah, lii la ma sama xol may fa yontoo ma ndaxte ki ngay fa yontool dalay jàppe ni danga xam dara moom dafa toog xas nu ni ñun nu dara te ay poosam doon ba tàyyi te ñun la. waaw léegi sëñ moom la ñuy ci loolu la ñuy wax <laughs> xam nga ni depuis vingt huit septembre boobu ba léegi ëpp na ko sax. ba waaw ah, gis nañ ni yàlla si ay tolof tolof la nekk. ah yëgu ko de man de ñaanalu ma ko. yëgu ma ko it nag. waaw ñu yëg nañ si ay tolof tolof la nekk est-ce que nekkul li nga ko meree. dem na ba wala wala wala àq bi la wala xam-xam nga utiliser foofu noonu pour bi ba xam da nga da nga ma déedéet. nee naa la man fi ma bokk xawma lu ñaaw du defit lu ñaaw sama waajur wu góor bi muy génn àdduna dafa jàpp bésuk aljuma jàngalu alxuraan ci la jaare génn àdduna sama maam bi muy génn àdduna. àllarba la ko déclaré ni gént na sama maam Cheikh Seydil Hadji Rawane ni ko loo def aljuma moo jiite sam la génn àdduna dara umpuma ci sama wejur wu jigéen jamono ji muy génn àdduna kurusam la waddal ci quatre heures du matin daanu dem duma fayantoog nit ci àdduna dama am lu ma métti billahi lii duma ni woon duma ci wax neexuma de su ma ci waxee sax neexuma ndax man ak ndeela bokkunu waaw dama ni la ni sëriñ bi lii nag manuma mani la ñooñu xaw ma marta ba boobu lan la nu am ma soxee ko ci ñoom duma tooñ nit nag man na ma tooñ sax yëg ni tooñ na ma waaye man dama dul tooñ su dee man la dafa am lu ko gaañ ci man man jéggal naa ko xanaa wax ji leer na leer naa ci yàlla hmm. su ma doon wallahi su ma doon fayu nit du am talu wax déggoo ma de su ma doon fayoon toog moom hmm. dépassé nanu ndeelaa la gën a xam ni Serigne Moustapha am na xam-xam xam na ko <laughs> xam na ko de xëy na dafa mer pourtant sama waay la de wala ma sama waay la woon hmm. ndax waaw kon loolu la rek sëriñ bi moo tax détaillé wu ma ci loolu. waaw xam nga ñun nag amee lu ñu lënt. surtout nga xamante ni dañuy dañuy dañuy déggee say Moustapha wala ñu koy safoo. ñu amee lu ay. laaj nanu ma pourtant. nee nan ma sëñ Moustapha nit woo na ma fu ne loo doon def ci kër Ndéla. ndax dañu bind ni sëñ Moustapha da doon liggéey Ndéla. waa déedéet dañu waroon déglu lan la ndeelo doon wax ba ma ñëw fa. waaw am as tuut a jotee su fekkee su cadre fay ak giñ naa ci salaatul faatihi bu doon fay la doonu masa boog déggoo ma sëriñ bi. Mhm. waa sëriñ bi gore mën na weesu nit di la liggéeyal ba nu tàgge ko yaayam mu dem ba ñëw te déggoo ko coow. coowu déggoo ma gore mënul weesu lool. amul lu gën a foor ci man sama ndey amul ci àdduna ki toog ñaan yàlla ni fekkal samay fan jox sama yaay amul lu gën a foor ci àdduna man mii di wax ak yow yëguma lu ma def ndee la internet bi nag neexu ko maam daa bëggoon daal nga euh, du problème mu sax yam mooy naa la utiliser rek ndax yeewu woo wala nangam sangam yooyu la rek ndax nit moom bu dee bu avancé yow nga coow bëggoo mu avancé nu waxante dëgg te yàlla tax yàlla dogal na ni nag du taxaw ni Serigne Moustapha ma sàccal nangam man maa koy topp waaye amul lu may toppe bëgguma nag wax ci moom vraiment bëgguma wax ci moom ndax te wér te wóor mooy man dama nawloo kilifa gu ñàkk jot mm-hmm. te xam nga lu gën a doy waar kilifa gu am jot say surga yi ci gën a ndaw bu nee benn danga naan fukk mm. kooku du kilifa mm. kilifa dan lay nawloo dangay ngay wax waxi nit mm. kilifa dafa am foo war a yam kilifa dëgg du tontu ay surgaam lii mooy li fi am. waaw léegi après euh, donc si bi ñuy gis ni politique bi mi ngi gën di avancé. élection présidentielle ñu ngi gën di ñëw mais ñu ngi jàpp ay xeex ak. ay dee ay accident. waaw xuloo yi fii. suñu mbokk waa PUR yi. nga ni ñoom la affaire bi gën a jàpp sax. donc yow yan jàng nga si am en tant que citoyen en tant que tamit borom xam-xam. waa xam nga. ba xam violence boobu nag est que neen la wala waaw. waa xam nga bi ñuy def émission ci yëpp yi dañu wax yii di xew yépp nag ñu na kenn ku ne xam fi ngay tooge waaye nag détaillé ko woon sëñ du ma ko du ma waaw waa xam nga ki bëgg jënd en gros it jaaye ko en gros waaw xam nga <laughs> waaw suñu xel yi comme ñun des fois duñu mën a jël yenn yi waaw mhm. mais ko jaay en détail bi lan moo dàq détail ci àdduna nit ki wax ak ba pare ni ku ko Sonko yitteel wooma ku Xalifa yitteel wooma ku Macky yitteel wooma ku waa kër Serigne Moustapha yitteel wooma bu baax sax dëgg yàlla déggoo ma de man Moustapha jamu yàlla la bu fi nekkal jaami yàlla yi wax dëgg fa neex yàlla di su dëgg laa lay wax mhm. lu baax rek laa fi nekkal. dawuma non non non xam nga lu tax déedéet xam nga tey sëriñ bi man. Hmm? sëriñ Moustapha Sy mii fu mu ma woo hmm. dem waaye su ma doon wax ci wàllu cadre gi nu ne hmm. dafa am foo xam ni ah moom dafa yam man ma war fa yam waruma ko dépasser waruma ko wéyal waaye dama ni am na loo xam ni. wax di ko yeggale amul solo. banati la waa noo lu ci bare du ndax waxoon naa fii ni nguur gi fi ne toogaat jaral na leen lu ne man xam naa loolu am na ñoo xam ni it jaral na leen lu ku ci nooy boppit leneen man ci xew mbir yii xew yu ci bare du xam naa ko bu wér yu ci bare do neen waa non dafa mënoon ñàkk ndax sang bi ci Touba déedéet sang bi ci Touba dafa wootewu hmm. wàcceelu kaamil wax wax ju rëy ah ngir jàmm am sëriñ bi kon lu nit naroon yëkkati sax bu naree ñaaw hmm. na sa ngor dem ci loolu na sa xel dem ci loolu te ba mu koy def lu ñëpp ko defandoo waaye seytaane am doole ba day dugg ci biir jàkk yi ni sàbbaale sunu borom bay dugg ci ñi jàng alquran kon seytaan yi kenn mënul mucc ci ñoom waaye mag ñi ñaan nanu ba tey léegi si Moussa Faye ñun tamit bëgg ñu am exclusivité mhm, bismillah kon amoon exclus am na ñeneen ñu amoon exclusivité pour xam ñaata candidat ñooy euh, ñooy jàll mhm. ñu dañ bëgg am exclusivité kan mooy war a gagné incha allah loolu moom ndigal laa ci xaar ndax xam nañ ci lu baree bari sëriñ bi <laughs> lu baree bari nag ndigal laa ci xaar waaw <laughs> waaw ndeysaan mm-hmm. waaw man yow danga nga garaaw sax ndaxte yow man émission Ndella Madior bi ma ci wax sax waxew ma ko woon fii ah. sama néeg laa ci doon waxtaane ndax nit ñi dan ma ciy laaj ba dama ci mujj sokew ma xalaat ni it nit ki gis loolu xel mi dana teey ndax xamul lu xew. vision Sénégal dañuy ñooy dañuy gis fu nekk ci Sénégal. ah moo taxit de tubaarkàlla <laughs> wallaay da ni gis dëgg la de ah moo tax nag sëriñ bi ku bëgg dégg dëgg daal mm-hmm. te nag ku ma mas a waxal ci àdduna dama naan la bindal. bindal waxuma ci ay falaa falaa man waxuma sax pour ay nit di ma xam waxuma pour lool maa ngi wax ngir yàlla ku bëgg a dégg rek del bàyyi xel sunu émission bi duma fi wax mukk suma teeyaayu bakkan. sëñ bi nag am na benn question bu ñu ma yóbbante. muy ban. xam te sàcc da leen a sonal lool loolu Muhammadul Haafis ay na ci. xunut ji aay na ci am na noo koy liggéeyee def ko ci kañe goo fekk mu dee sàcc bu bëgga dem ci leneen rek na fa dugg ca kër ga du problème bu dee lool rek la hmm. nar nu seet si. léegi nag koo xam ni man damay jox tegtal ci sàcc sax te naan la boo paree bindal ma ko convocation xanaa looloo gën a leer di a sàcc xanaa loolu moo gën a garaaw <laughs> ah mais sëñ bu yow nga naan ma sàcc gu feeñ ak gu feeñut dama naan la di wala sàcc. nit ñëw na di ma seetloo ma ni ko kii ngeen àndal kii moo sàcc alal ji xanaa looloo gën a dee loolu. waa léegi est-ce que si Moustapha dina joxe ay doon wax si si si commencement waxtaan bi nga xamante ni bëggul ñu liggéey ko. waaw est am na sécurité boo xamante ni bu wow. waaw wow xam te ni liggéey nañ ko liggéey nañ ko liggéey nañ ko mhm. am na tamit lu koy. am na ñaan gunu naan karafilu. Mhm. am ñaan gunu naan xam su naxaaf. am ñaan goo xam ni mi ngi tënku ci ismul jalaal di ahamun saxakun xalaxun yasun am nu ko nit di liggéey ku lay liggéey mi ngi tiim ci bàmmeelam nit ki da koy jëfandikoo bu la nit ki dee liggéey sax li gën a tax mooy day am avertissement day gént leer nu wan ni ko ne boo ko laalee yàqu bu reppee nag mën na la laal moom nit ki bëgg a aaru sump gu sax ci biir armeel am na noo koy utiliser boole ko tabat yaddaa nit xalaatu la liggéey ci àdduna xam-xam am na sëriñ bi te yu doy mi ci moo tax gile yooyu am na am na yu raw yooyu sax sëriñ bi jigéen bu tas balaa muy jóge ci këram waroon na wuuti paftan dugal ko ci biir këram toog ci ba pare ngir nu bañ ko toog lool ñaata jigéen ay tas ñaata jigéen la liggéey ñaata nit ci kilifa yi toog ni leen liggéey lu leen def rek pour mu dal leen ba ñi ngi dox rek waaye seen dara doxatul ci lépp. waaw loolu mooy si côté ñuy ñi nga xam ni dañu liggéey ba pare mu. mën na dañ ci lu gaaw ci lu gaaw sax sëñ bi ay nen da koy dindi ak façon nen ya nag da koy dindi. bu baax sëriñ bi da ngay yëg ne li nga doon yëg démb ak li ngay yëg tey wute yoonu am na am alxuraan bàyyiwul dara de amu bàyyiwul dara nag alxuraan lépp ngi ci te lu doy waar la waaw lépp nga ca nag ci alxuraanul karim bismillah dañoo gis ni football beeg làmb ci yaakaar naa doo si yëngu waaw dama ciy ñaan waaw d'accord ñi nga xamante ni dañ naan dafa loxo bi mbër muy bëri sa loxo bi am na fois wala muy def yeneen est-ce que yooyu sëñ am na kooku tamit gilet bi ñoo bokk li nga koy fajee ak ñi nga xam te ni nit ordinaire bi la maanaam nga xam te ni xam nga man jàpp yëpp ay ay ay yëpp àdduna bi noo du benn xam nga tey ma xamale benn affaire sama loxo bi takkuma ci téere mhm. mën naa ci dóor doomu aadama pour mu nit dett ah, léegi toog déedéet boobu déedéet du loolu de <laughs> xoolal alquran la inna batsa rabbika la sadidun am na noo koy jëfe lim tëfli ko sa loxo loolaal mu daanu pourtant loolu du dara loxo boobu laa gis nañ ah, <laughs> loolu moom dag ma bëgg a jaaxasee <laughs> rek waa nga nit ci boppam ah. ci wàllu làmb nit dañuy tënk loxo comme mi ngi mel ni rek dof buy duuri no tànkal loxo yi xanatul duuri day am même football day am nit am na noo koy xaatime teg ko ci cin muy bax rek football bi du mas a dara. ah si ma ni comme ni nga ko mënee nii ngeen nekk ay ah, ko waroon xam nga sëriñ bi. man li ma gëm sama àdduna dafa am lu ma gëm te dama koy faral di wax euh, man internet bi jamono ji ma ciy wax sonn nañ ci man lool dama ni woon du ma wax ci internet ci àdduna xam nga lan moo tax nit ku xamul fi ngay waxee man na la weddi te firnde ji sànq wax nga ko ba ma ne parti yi ñeentay génn ci vingt sept weddi nga ko te weddi gi dama ciy d'accord ak yow ndax xamoo waaye nag balaa nga doon weddi it yoon la nga dang ko war a xam. Hmm. dama jàppoon tamit bi loolu mënul woon nekk <laughs> naa ci loolu ah ñaareel bi mooy comme li nga wax ni hmm. dafa am lu wir la ni nit ki hmm. am na loo ma doon wax sax bàyyi na yoon wi maanaam si wàllum ji nekkoon. waaw waaw kay ma ni la am na loo xam ni yow sa wàllu bopp mm-hmm. nit ki mm-hmm. équipe nationale bi. waaw Coupe d'Afrique yeeg yooyu. pourtant day mm-hmm. nit balaa mu lay mën a defal dara Sénégal ñaara fi am soo siiwul du gaaw am ci yow soxla <laughs> loolu moom am na ci sëriñ si. même boo xamul dara sax siiwal rek lu lu garaaw la nag ñu ngi yóbbu ñu ngi yóbbu ay sëriñ foofu waaw déggoo ma de gis nga li ma lay wax ni xam nga li gën a garaaw yóbbu naa diw rek dama war a gañe sëriñ bi hmm. am na eta bu daanu woon fii hmm. xam nga lu ko daaneel hmm. zawiye bu nu doon ay nu raxmati rabbaniya moo ko daaneel pourtant de <laughs> ràññee woon ci de kenn de pourtant de ñoom seen biir la pourtant sénégalais yi mën nañu ñaanal Sénégal waa léegi Serigne Moustapha xaw ko pour pourtant mën nga ñëw ci sëñ Moustapha rek ni ko ñaanalal wala sëñ Moustapha xam ni day ñaanal lii mu nekk équipe bi ndax ndam la ndamam la wallahi joxoo ko sax dara de mu ñaan waaye déedéet bu ci doon wax tey ni nu dafa bëgg a bës. sëñ bi na waaw man yàlla day dogal sax jamono yi mu dee am damay ubbu bu dee dëgg rek laay wax te yàlla tax damay ne ci leneen waaye wax dëgg yàlla ni man di sëriñ bi réew mi rek ma ñotteel lu ma dégg ni réew maa ngi ci tamuy dox man Moustapha maa ngi ci biir waaye nag ku bàyyi yoon yi léeg fi nga bëgg yegg doo fa yegg waaye li wér te wóor équipe nationale nit mën na dëggu jàng benn bismillahi rahmaani rahim sax ñaan ko ci yéene nu nangul ko ko nag gëmal ko ko bañ ko ko xeebal sax équipe bi am ndam te pourtant lu man nekk la sëriñ bi. donc man damaa waxoon damay tëj fii nii waaye ndax ki ki ki kay jël équipe signé ñoom contrat ni leen da ngeen am lii. Mhm. bu ñuy dem ci mamarsa bi nga woo ni leen dangeen am temps de bi mhm. pourtant man ma koy def de xanaa loolu gën a yéeme ñu ngi may dégg <laughs> looloo gën a bi. <laughs> da ngeen am taada bi bii bu amul bu ngeen ñëwee saaga leen ma bu fi ne naan sëñ bi tey tey dafa yéeme de saaga leen ma non xam-xam am na sëriñ bi am na koo xam ni potu ndaawu ndox mënu ko jeexal am na ku mën naan ñaar jeex na. <laughs> mais sëñ bi dama pour am këyit problème pour tukki. Mhm. surtout problème pour pour këyit. waaw loolu seen seen loolu loolu moo koy waral ak benn saafara nga am na ci lu garaaw looy booleeg lem këyit toppatoo da nga koy am am na sax ay jaaru boo jokkalantee sa CV. Hmm. kenn du ni ko kenn du ko. maanaam xam-xam suuf dañu koy fonk mel kenn ko jox yu fa moom nga ko jox am na ci alxuraan xaatimu Suleymaan am na ci mën nañ ko liggéeyal nit ba mu yegg jaaro dañ koy liggéeyal ay nit yu ci bare ci àll bi sax lay doon ci Europe bi kayit ak lu loo doonul këyit sëñ bi nit warul banque xanaa xamo loolu waaw xam nga nit bu banque dëgg dana fooyati tobay mu ne koo gis mu naan nii loxo rek amewul dara <laughs> kooku moom waaw mën nay def lu kenn defut te ñi mu dendalit bu leen ëppee ñaanu waajur mën na mën nay njëkk a jeexal waaye bayre boobu am na sëriñ bi <laughs> bis bu ne hmm. góor gu rafet lool hmm. topp jigéen mu lank ba tëdd ca naaj wa góor gu ñaaw jigéen ji di ko sukkal di ko raamal amul ah, jeex na déedéet waaw mbëggeel googu nag dem na ba ci palaas yi borom boutique day tax nga ci buntu boutique bi boroom kër am ku mu dëkkal génn ci kër gi romb ko dem yëndi feneen. waaw léegi ñi am na comme sax day a way daa ko way te keneen day am. lool nag mbir la. bayre da ci am bu baax. yoo yow da koy def da nga waaw dañ ciy liggéey di bu baax sax sëriñ bi ci ay ceen ak ay jaaro dañ koy liggéey bu baax sax kon suñu jeex na sant yàlla ak di jéggalu di jéggalu lu baree bare ci koo xam ni yaa ngi nu doon teewlu te nga jàpp ni sax tooñ nanu di wax nag yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi. yal na yàlla defit jàmm ci na bi waxunu dara yit ngir wax ak kenn danu wax ngir defar danu waxit ngir leeral danu waxit ngir nit ñi xam ku nekk fi nga tooge ak kan mooy Serigne Mustapha di ñaanal seen seen bi yàlla defal leen tawsiir defal leen it tawfiix defal leen ndam bu dul jeex ci daraje yi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi di kontaan ak di wax asalaamaaleykum aleykum rahmatullah sang sëñ bi maa ngi maa ngi jégalu. ko bàcc ni ko bàcc barke yonent bi lu ko jàpp ba ko salaay salaam. sëñ bi fàtte numéro bi kon ñu ñu waxaat uh-huh. beneen bi 70. 668. 56 99. d'accord si Moustapha est-ce que